biñ koy taxawal bon ñu ne am kat koo xam dañ ci bëgg a ak wax le PDG président Thiès ci kanam ñu waxtaan ceeg moom ci moom ci salle ci penc ñu taxaw euh, ci koñ bi ñuy naan fa la ñu taxaw dëggal suñu bopp gëm euh, une mise de 1 million de francs CFA

li ma gëm mooy sama gox maintenant ànd ak samay jeune gox fas yéene li ñu bëgg ma bëgg parce que am soxla mu lu may gagné ci politique parce que yàlla teral na ma donc ñi ma àndal laay souhaité yàlla suñu borom euh, ànd bi ñu ànd ak man ñu gis seen bopp bu baax a baax te incha allahu rabbi dama ànd ak nit koo xam ne li ma njëkk a wax daf na ma grand ma ne ko naam mu ne ma soo ànd ak man ren ba déwén gisoo ci man sa bopp benn changement na nga bàyyi ma donc kooku donc ñu ngi wax ni li ñuy def nii mu nekk programme ne ko teg ñi nga ne ñoom la ñu des jeunes ñu bokk benn goox dañu fas yéene ñoom au-delà de la politique je dis que politique est derrière maintenant ambition bi mon quartier la jeunesse de mon quartier les femmes de mon quartier ñooñu laay fas yéene sol mbubu fas yéene nekk seen Baay Faal liggéeyal leen ñu ngi waajal nag euh, final bi nga xam ñu ngi ci huitième de final yi dëgg la mais ñu ngi waajal le final ñu ngi ko fas yéene def le 25 décembre fii ci biir terrain bi nga xam ne moom lañ ko tàmbalee incha allahu rabi parce que la jeunesse ñoo ko ñaan dañ ko naroon a tuxal yóbbu ko ci benn terrain mais comme la jeunesse ñoom ñoo ko ñaan euh, nañ leen ko defalee comme ni ko bëggee donc.

Euh, yaakaar naa ni fa la ñuy compétir tey équipe championnat la donc kooku manque ko ci tàllal loxo di ko ñaanaale suuf aussi boo xam ne dañ ko fay def incha allahu rabi et incha allahu rabi gëm naa ni dina ko def kon moo tax man leen loolu nangul naa leen ko DG dina ko def ci kàttanu yàlla euh, au delà de ça ñu gën a yaatal rek par rapport ak suñu diggante ak Pape Doumbouya parce que aussi ragal féete tey xëy wërsëg comme ni ma koy waxee jiitu la ci néeg bi du tax mën a la fi ngay toog parce que mën naa la jiitu ci néeg bi nga gën maa miin néeg bi te yaakaar naa ni tey li tax ma ànd ak moom loolu laa bëgg gën a fësal euh, nit ci xam ko parce que aussi ñun yàlla dañoo may ñu am expérience politique mais ci biir politique bi ñu doon def gis nañu li ci ëpp c'est des politiques c'est des politiques politiciens en quelque sorte aujourd'hui il est temps pour que nit ñi ku ci nekk ku ne fa nga dëkk nga fexe noo ko defaree

am na lu ko yàlla jox te joxum ko maanaam Pape Doumbouya il est tellement social nit la koo xam ni aussi jege na askanam te nit la koo xam ni wax dëgg yàlla boo ko fekkee fi mu nekk da ngay naan moom mooy apprenti ñi mu nekkal donc nit lu la yàlla mun a may rek na nga xam ni aussi ci nit ñi rek ngay mujj te nit ñee lay mujjee te képp koo xam ni xam nga ni nit ñee lay mujjee rek sa position ak doomu adama yi war na mën a rafet donc man loolu laa ko nawee nit xam ne jox na nit man fu ma seen Euh, li may wax nii suma jeune frère laa àndal démb ñoo ànd pourtant bi ma ñëwee gaare sama oto daf ne ma non non non moom moo wàcc ci kaw ñëw fekk ma sama oto wax ak moom wax ak man li nga xam ni wax dëgg yàlla euh, moom lay doomu adama di def bari na tey ñoo xam ni ànd nañu ko moom parce que am nañu fi toog ci jataay bi xam nañu bu baax li may wax am na ñoo xam ne tey c'est des ministres wala ñu nekk ay PCA et pourtant loolu ñu doom ñun dañ cee def suñu kent laayu kàttan pour ñu doon ko mais tey ana moom donc

maa ngi dalal sa xel di wax ni waa renaissance de Jaxaw nañu gëm ni Pape Doumbouya dina leen ko defal parce que Pape Doumbouya luweewul Jaxaw dafee juddoo màggee fii dëkk fii ay waajuram dëkk fii kon yaakaar naa ni balaa defari fenn day defal Jaxaw ba pare incha allahu rabi dina ko defar te dina ci def suuf maanaam dina ko baliser ba mu baax incha allahu rabi parce que fii ma nekk nii bu ma fi jógee li may njëkk a def mooy jël suma téléphone wax ko dina ko dégg te dina ma jot wax ni ma cee dinaa ko def kon moolu wax neel waa renaissance am duma yàlla dina leen defal terrain bi incha allah kooku moom dinaa la ko wax. egg dinañu ba ci huitième de finale yi ah. ñëw ci quart bi. quart de finale yi d' accord donc ci trente trente deux équipes yi bi ñu dëkkee joué phase de poule yi hein, poule A Abattoir moo fa génn premier topp ci dixième ak écurie Samba Diaw poule B salon bi moo fa génn Jeune du Ballon. Renaissance Medina fa comme troisième, comme meilleur troisième.